saya Anjuran. saya Anjuran. Desa Daouda ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy rond-point H&M. euh, dañuy daal di introsé rek euh, suñu benn euh, maanaam citoyen bi mu daal di li mu xalaat si victoire bi sëñ bi nuyu naa la. maa lay fay Gaynde Ndiaye. yaa si jàmm maa ngi si jàmm Gaynde Ndiaye. tur bi naka la. da baax la Gaynde Ndiaye. da baax naka nga gisee naka ngay dundee Sénégal Ndiaye baax mën a football. Eh, ñun ragaluñu ragaluñu dañoo mën a te am nañ fit dañuy dem ba sori fu mu yem mu neex Sénégal Ndiaye. Gaynde Njaay billahi j'avais confiance barki alxuraani karimi yéen a may gis j'avais confiance à eux billahi walaay teg ma ko fenn ngir ci yàlla laa ko teg démb laa jàpp juli takkusaan laa jàpp fii romb gars yi mu julli ji fële ne leen senegal day door insha allahu rabbi yàlla da koy def yàlla ñu seetaan encore coïncidé ak anniversaire ba yomal xiyam kenn du wax góolu Sénégal te doo tudd waa Tëngéej Bouba Diop vive Sénégal. ba naka ngay dundee tey victoire bi. mbette kontaan ñëpp si jaama salaam. ñu ñuy ñaanal coupe du monde bi day ñëw Sénégal. billaahi wallaahi taalaay. kontaan nañ. kontaan nañ bu baax. merci beaucoup. merci beaucoup kontaan nañ bu baax a baax si xale kontaan nañ bu baax a baax si bu baax. Ah. wax. Aline Bala tudd. waaw Pape Bouba Diop moo ñu yàlla mu dem pare de en tout cas <laughs> Aliou Cissé macha allah. <laughs> kontaan nañ bu baax a baax donc euh, lii lañ leen indi woon tey euh, ci mbégte bi nga xamante ne euh, sénégalais yi ah da wax nuyu naa la. ma maa leen fay bu baax a baax baax. tur bi naka la. man papa Dansokho. waaw waaw naka ngay dundee victoire bi nga xamante ne sénégalais yi indi nañ ko tey. victoire bi neex na bu baax a baax a baax ñoo ni kontaan si Lyon ñoo ñuy feete te ci Pape Bouba Diop yal na ko yàlla xare bi moom kontaan nañ ci coupe bi moom noon noon noonu ñaan na Aliou Cissé bi ñëw fii si senegal noonu ni tamit Macky Sall bu baax a baax a baax yàlla ndam li ñëw fii ak coupe bi ñu coupe bi rek leen bëgg coupe bi te yàlla li yem fii yàlla bu ndam li yem daal di nga xamante ne coupe bi ñu daal di koy célébrer rek comme ni ñu ko doon defee euh, fi nga xamante ne moom mooy coupe euh, coupe d'Afrique bi jërë ngeen jëf